blouson bi mooy blouson yàlla mbin ak ban warga père Max de jël na blouson ba toog père jox nañ la blouson yàlla mbin de waaw mais yéen na ma ko daan jëlee laa ko jëlee rek. na nga ko daan lii du lu bees ci yow. te nee ko kenn du ko indil ay cag ah, dañ koo bëggoon a yónnee. kenn du ko yónnee moo koy jël suñu boppam. ndax làmb mais père looy bañ ci yónnee bi. làmb ah, luy loolu. làmb la yow loo war a ragal fi mu ne nii. déet du lamb dama ne wolof a ko xam moom mi ko tuddee lamb. wolof a xam lamb. ndax daf ne mën ngaa daj mën ngaa. mën ngaa bañ a daj te yow da nga bëgg a daj. te it nag. waaw. ndaanaan bu dul faussé rendez ak mbëtt mu dul yoon. waaw du jóg ci naka yaram bi. foog bokkut ak ragal. foog ak ragal du benn. waaw oh te yow da ngay fogu. waaw dañuy fogu mag day fogu. lamb la daal. mais yal min man gis naa mu defati sëst bu doyati waar peer. lam daan def la defati sax dama naan defati na dama ko gis biig ak ay njulli yoo xam ne mat nañu ay dizaine lañu fu ne mu jongale fa xarafale fa xale mais yal mbin sastu yooyu muy def sastu noobul yooyu sastu yooyu nga xam ne ay sastu social la loolu yéen ñi ko yar waa xam nga moom yàlla ko bindee noonu waaw di sonal ñu bëri sonalu waaw bëri na doomu aadama yoo xam ne ay góor ñoo xam ne bu dul woon jigéen jigéen a xaalis kenn du jotee kenn dëgg la te moom loolu yitteelu ko tey jigéen xaalis mm-hmm. daanaka mooy tas réew. ah te moom loolu yitteelu ko. moo tax mu mën a nekk ak ñëpp alal du ko boole kenn. alal du ko boole kenn. lu mu yor da koy bokk ki mhm. xaritam ak i dëkkandoo. Mhm. gars yi dañ naan mbër benn ci baax ñu ne ban ñu ne bi siiwagul. waaw waaye Siteu tax doo ñëw da ngay dindi loolu. moom ba mu siiwee la gën a baax. ba mu siiwee lépp njariñ. waaw ah, ba mu a baax mais Modou Lo mi taxaw ne moo dàq bëri ci làmb ji. ah non mën naa bëre rek. mën naa bëre rek mën naa bëre mais tay père dama né sen combat bi wala sa mbeur mi mboy mbeur mo xamné bamuy débuter muy rek waxnako sama émission bamuy débuter débuté ak wa gën ba tay muy bëré combat royal di bëré mbeur mo xamné ren momlan lañ nominé maire leader de reine bobu liggéey nga def ak Siteu and ak mom monsieur souléna leen dégg détail masta am ciow masta am père max ak Siteu père ak Siteu père ak Siteu ba tay royal taxaw combat couronne loolu moom bettuñu ci mom ñu bari dañoo bàyyi xel Lac de Guiers wala Papa waaw waaye man combat bi moo doon def test ci moom. mooy. moom Sarko. Ah, ba wane woon sa test yow. mu jàllee laa xam ne ku mu mënta bëreeg amul. oh. waxuma la ay wax jaaxal wér laa la. kon Modou maanaam fi mu nekk nii li ci gaa yi wax gars yi jàpp ne dangeen di waa ji day ñëw jaar seen kaw jàll am na ñu ko gisee noon de. ah non loolu wax bu yàqu la. am na ah. rek ku ma dégg mu tudd ay. combat yu bari ne buñ ko bëree woon. waaw. kee du am dara. dal ne Siteu yalla rek ci man dara koku wane na ne même bu Siteu dané yalla la waaye nak da nga lay di comprendre waxukaay yee bëri. Ah. am ñu ñoo xam ne dañoo fay ñu nopi fim nek ni nii. waaw mais nag waxukaay yee bëri. moo tax ku ne di wax mbaadu. am nañu waron fay ñu nopi boy wax da ngay wax ci xam-xam quoi. waaw da ngay wax ci xam-xam. manam waro di. buñ gëmoon mënu mënuñoo daan modlo Lo duñ ko jël. da ngay na gëm ni yéen man modulo lamb fo la mais ku daanu rus. ñëw rek modu yéen a ci suñu ñibbi kon li wax ci ñu mbokk mais tay tamit la motax nga nga nga nga nga nga yow xaro bul buluson dan la fek sa kër ak yoy tay nga sol saw dal jóge jàmm gën ba tosan jël si ko andi waw bu paree ma ëmb ko delloog mom bes ba ñu talal loxo borom bar mi ki maye ndam ki maye li rek ay wax ji lii contrat da koy mais am na ñoo combat bi amul promotion yoy ñooñ tamit waaw yo promoteur bi da xër rek Mansour waaye wow ci Congo la yem si Modou Lo waaw sax ah? la maa la dégg nga may wax ay waay yow xam nga ne jaru ko ñàkk ndax partenaires yi ngay signal déggal maa dégg père na wow ci Congo la yem ñuul ci kukku la yem ah. kookoy père Max Mbargane ah nee na la wow ci Congo la yem mais yow dema goo yow non maa ngi samp lu tax ndigal jëfe waaw ah, Siteu moo ñu moo ñu digal ñëw toog fii superviser xool nekkatuñu ay xalé yi ñew ci ah dañuy ñew xool superviser ci kanam tuti buñ ko woy ne ko départal mu départ ñëw dañuy lamb rek hmm? dañuy lamb rek lool lepp dañuy lamb da ngeen di lamb rek huit heures ak neuf heures ak ci lañ fanal waaw lamb rek dañuy lamb man nañuy dem di ñew di def ni dañuy lamb lool lamb rek hmm. manam dal yeen dal lamb ngeen di def fi nek ni lamb rek lamb rek amul wax amul lenn ñuy def jëf moo war adversaire bi bargaan wax rek waaw di ñaan borom baar mi and ak ñun loolu rek ngeen di ñaan loolu rek la ñuy ñaan cey loolu loolu rek loolu rek la ñuy ñaan ñi ñooy waa jàmm gën waa kër Siteu waaw di sant yàlla ñu ngi ñëw taxaw jàkkaarloog cosaan di dugg di génn di xool ni gaay installé waaw xam nga làmb nag làmb la maara làmbay làmb loola waaye mën a wax làmb làmb la tudd waaw da ngay làmb daj làmb des fois doo daj waaye daal loo ci mën a dégg le 24 novembre bés la ci bés yi de Modou Lo Siteu li père Max wax dëgg la waaw ci kaw lay yem waaw waxal daj googu nga wax fa jëm ak yow daj ji mooy daj goog nga wax. waaw parce que nekk waayu Serigne Touba di waayu Cheikh Ibra. est-ce que waaw lu mu làmb da koy doj. démb teg nga la dugal. lël góor waaw. defal kasak. waaw teg nga bët gis nga état de bi. Mm-hmm. waaw sant yàlla. sant yàlla yàlla baax ndeysaan uh-huh. loolu moo a tuuti. Uh-huh. Ah. yàlla. waaw bàyyi fa la. yàlla yàlla na ko yàlla fay xol. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na ko suñu borom. waaye cey Modou waaw Modou jàmbaar la. waaw xale la dugal. lël wow waaw di kesak defal kasak waaw teg nga bët gis nga bi kon sant yàlla sant yàlla yàlla baax deh loolu moo si gën a tuuti yàlla waaw bàyyi faal la yàlla yàlla na ko yàlla fay xol amin ya rabbal alamin yàlla na suñu mau, waaye cey Modou Lo waaw Modou jàmbaar la mais leen dong laa lam lu ma lay siy digal te di la ko wax mooy ci kanam tuuti tuuti tuuti na kan wax ji amul coow li Modou dañuy bëreeg yow te bu ñuy bëreeg yow dañuy xeex ak yow. da ngeen di xeex ak Modou. Modou Lo Siteu day ñëw xeex ak yow. mais ñi ma sa xeex ak Modou est-ce net li nañ ko. Modou Lo Siteu day ñëw xeex ak yow ñu ngi woo ñëpp nag ci non à la violence. waaw su su loolu bis bii ñuy bëree nii. waaw couronne roi des arènes la. ndeysaan. te dafa am ñoo xamante ne bi ñu ngi yor seen làmmiñ di wax. Mhm. ñi di ñaawal ñi di rafetal waaye ñun bay faali waaw loolu soññe ci ñun soññe la ci ñun xanaa xamuñu loolu sonalu ñu yoy noonu waaw barki maam Cheikh ibe waaw maanaam xoolal jaaxalu li yam leen bi ndax xamul tax mom mhm. li ni ko suñu borom yenn mhm. atan nako mhm. li ni atan nako de am ñoo xam nak biñ leen ko yone après xam tax mu yem leen waaw attanul ko si te nak mbolo mi mu bot mo gëna 10 ta te leen kon ko dootul waa di seen bi man barki maam Cheikh ibe yéemu ko. yéemu ko yéemu ko de. yéemu ko daal Modou dina ñëw si yow. bëri yow mais dinaa la këf. Mhm. suñ Babacar nga jéggal ma. na ñëwal Alési Mara. waaye nag lu waaye euh, xam làmb xam làmb. te xam ne maanaam tey keroog ba euh, Tyson di jël roi de arènes ñii fi fekk daf leen indil gitangaas. Balla Gaye bi mu koy këf maanaam ci ni daf koo indil gitangaas. Eumeu Sène bi mu koy këf ci Bombardier da koo indil gitangaas est-ce que. pare ngeen tey pour indil seytaane Modou Lo indil ko gitaangaas wala kon du du dégg nag wax bu doon xool doomu jamaa la wara doon Modou Lo ah. si day ñu la modlo dina daj lu mësa a daj ci lamb maanaam làmb bu ko waxe 22 il yëpp palmarès bo faya ko fop hmm. manam ñooñu ñooy làmb Modou Lo 1 la ci séeréer mais c'est 200 la ci séeréer ñoom lolu neex na ah,